من الله قل دجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل الفندري بأهل بغن الأسود كدري نفى لغير الله في الذكار كل أزل جره مكان علمني الرحمن في السفينه بأنني خديم ذي المدينة برأني الله غدا كناكي من كل جانب إلى المناكر بالله من الشيطان الرجيم وإني أهشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام عليكم mbokki قليلي asalaamaaleykum mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe seen mbokkum jam, seen mbokkum julit ma leen di nuyu di leen sant di leen gërëm kon nag bisu la lañu bisu mag bi ñuy dëgmal di ko seenu muy bis bi sëriñ bi tukkee woon ba ñibbisi boobu rek la ngeen di fàttali ndax ba mu bàyyi ko ba mu bàyyi ko ci tukki ba ndakaaru nga wàcc xëye ko dëkk lugo dem fanaani kokki yendu fa bañ demee makkasaar ba julli timis biñ geesoo rek liñ seen weer wi muy muy koor wala umi tak fa jóge dem sànna sànna fa la wore ba koor ga jeex bañ waree dëgg mel mbakki jor makka sam babu julli fa yor yor jàll mbakki jor yar kër matar binta dal di jall ñaxal kër matar su señ matar marema mu bàyyi ko dal nu dëngal dëkkam bu tedd muy daru salaam fekk fa taalibeem boobu nga xam ne mooy maam Cheikh Anta kër gooñe nag rakkam gi tedd ji Cheikh Anta mu fekk ko fa ndax moom laataa dem la ko joxoon kër ga may ko ko la fa nekk lépp kon moo tax bi mu dikkee mu daal dëngal foofa rek dal di woolu nag sëñ Ibra Faati jàmbaaram jëwrinam ji nga xam ne ba muy dem moom leen dénkoon njaboot gi kër gi yeeg tool yeeg dong yeeg lépp sëñ Ibra Faati la ko dénkoon mu wolu ko ba mu dikk ci fekk ko daru salaam mu ne ko tukki ba dikk andi naa ab sarice boo xam ne ñëpp ci la bokk ba may dem itam ñëpp laa wasaale lu mu fa jëlee rek bu ma dikkee bokk julli yëpp ak tali bi yëpp kon nag ma sant yàlla ci saa jëmm lott naa ci ma bëgg ngeen santale ma ko ma bëgg ngeen santale ma ko santal ma bis boobu yi sant suñu borom ndax ndax li ma defal lépp ci bis boobu dama ko defal kon nag lott naa ci man sant ko sant ko sama lott naa ci sant ko kon nag dama bëgg ngeen ko ndax ba may dem ñëpp laa fa sal julli yëpp laa fa sal lépp ma fa julli ba ma dikkee bëgg ko julli yëpp ak taalibe yëpp borom kër bu nekk na bégal ak njabootam diko ko ci ganar ba ci gëléem lu ci way am rek na wax ci defal ci bis bobu sant na mako sunu borom bis magal gi muy bis bi ñu tamal mi magal gi xeru taalibe yi tax ñu dema dema dem ba tudde ko tudde ko wat mu daan nañ bayyi tur woowu nañ ko tudde ak magal juróom yi mujj ci wax Fali ko waxtu sax ba ñëpp jot ci buy ca loola bi Seex lu toogee nag ci ak laabiiram ak bëggal ñépp jàmm ak bëggal ñëpp xéewal moo tax bi mu toogee rek mu daal nañ ko indi ci dëkkam bu tedd bii nga xam ne lu mu am fi la ko amee bu ko defee bokk yi daje fi julli yépp daje fi ndax bu muy dem julli yépp la da da da non lu mu am lu mu fa jëlee rek bu dikkee bokk julli yépp kon nag nañ ko indi dëkkam bu tedd bii bu ko defee julli yépp daje fi bokk yépp daje fi loolu lu sëriñ fallu def moo tax ñu andi ko ci dëkk bii kon nag jërëjëf sëriñ fallu bis bi alximis la dëpp fukki fan ak juróom ñett ci weer bi loolu yëg bis bi kon nag bis baa ngoog wonaa ci ñépp bayuma kenn bis boobu rek lan am tey ak ëllëg gën ci doole rek sante li ma yàlla mi nga xam ne ma tànn ba indi ma fii ma nekkal fi ma nekk jëwrin sëñ tuubaa fii ci kaw suuf loolu rek laa ci doole gën li ma sunu borom ma itam maa ngi sant sama bokk yépp ñi nga xam ne ñu la bokkal sëriñ tuubaa muy kilifa yi nga xam ne ñu la bokkal sëriñ ndax bien fi sun borom andee tek ma fi ñom ñepp ñu nangul ma lepp lu ma nek rek jappal nañ ma ca lepp lo xam ne dugg na seen nopp rek jëfe nañ ko naa ko ko bëgg jappal ko jàpp ko leer ak cheikh si nga xam ñom itam mo di sant bu baax di den gërëm ak talibi yépp ak murid yépp te xam seen jëf suñu borom nangul nako ak ki tax ngeen bi ko jëf nangul nako kon nag lu mu nangul suñu borom nangul ko suñu borom nangul mu nangul kon nag sant nañ leen bu baax sant nañ ci dafay diine yi nga xam ne nañ lépp ndax li ma leen waxoon lépp def nañ ko ndax la ma leen woon leen ñëpp nekk benn ndax yàlla ji benn la waxtu yi juróom benn la weeru koor yi benn la kon nag foofu amul xàjjale ko li ma la ma ko waxoon te bis la ma ko waxoon te kori ga rek moom laa fàttali rek bëggatuma dégg kenn teg ci benn kilifa loo xam ne li da ko jóyee loolu bëggatuma ko dégg maa ngi koy yeesal ci yeesal maa ngi leen di yi itam ci ndangu gi ngeen ma ko nangul ndax fu ma toll rek sant yaa ngi dikk te loolu lépp ci yéen na rek ndax nit mënut a mu amut li ngeen am lépp may ngeen ma ko kon nag sant naa leen bu baax këram naa leen bu baax noo ngi ñaan suñu borom itam yàlla dëgëral ko seytaane bañ cee dugg seytaane am cib gent noonu ko sëñ noonu ko Seex Saaliw digle woon itam ba tey ñoo ngi koy yeesal rek kenn ku nekk na jàng ñetti kaamil kenn ku nekk na jàng ñetti kaamil ñetti kaamil yooyu ku ko mënta jàng ñu jàngal la ko wanaa ci ñëpp nag bàyyiwuma kenn ndax sëñ Tuubaa ba muy dem ñëpp la demaloon ren bu mu fa jëlee rek bokk ñëpp kon nag wanaa ñëpp bàyyiwuma kenn liñ ciy dolli rek moo di gone yi wax ci tur yoon yi dina dina tilimal bëggatuma dégg genn gone wax ci tur yoon wi bëggatuma dégg genn gone wax ci tur yoon wi bëggatuma ko dégg waaye bu ma ko déggatee rek la ma joxlante yow fa fa nga toog la lay fekk kon loolu moo doon loolu rek moo doon kaddu yi خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر صفر سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاها ñi nga xam ne da ngeen tilima garab tuuba ndax sëñ Touba amatul noon damay dégg ñu naan Macky Sall jubatu waa Touba waa Touba jubatu moom te ñun fii sëñ Touba amul kenn ku ñu dëngool amul kenn ku ñu noonu kon loolu bëggatuma koo dégg ñi ko da wax li fi amoon itam bëgguma koo dégg ndax fekkoon na ma fii li ma siyaare si bañ génnee di ko yooxu loolu yëguma ci dara bëggatuma koo dégg bëggatuma koo dégg mais ku ko def rek maa koy diggal ak yow kon loolu loolu daal di xamal ne bëggatuma ma am koo dégg bëggatuma koo dégg برأنا الله بداكناك من كل جانب إلى المناكر أذهب عني الله فيك البصار قبل مبارزي وعني خلبصار دعاني الرحيم عند الداوم لو بما أغنى عن التساوم يستر للمنى لدى ذي بالولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لي قاد أهل البدن الأسودا من زحزح الواشي والحسودا